vos besoins sont nos priorités. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Serigne une nono. nono. di ziar ci Baye Fall yi nono. baa nono. noonu jaa Aliou lu naaj bi tang xol yaangi sedd <laughs> Aliou Afia lu naaj bi tàng xol yaa sedd nga lu naaj bi tàng xol yaa sedd lu waral loolu Serigne Bara mbake Afia fi ci ndindi Afia ci magul serigne Bamba di maamam li hitmatil muxtaar fi sahri safar eh? safar gaangi dox way safar gi way Aliou wangi nonu mom ngeen deg nonu nday sar mu kaddu am solo yoy Serigne Bara ngi nonu di ak bay Fall di xol bay Fall andak jewriñ yi nga xamni ni ñom la wara andal tey wax papa Abdou ne ko waaw doon sax loolu gën a doon wàllu Makka ak Seydina Muhammad tey ndeysaan te yow la Mbàkke ku nangul yow la dawuñu dëppuñu daayuñu baara afiya si lépp <laughs> waay Karim waay ndeysaan déggal lii Fallou Baye Mbène ah Mame Khadim Mbacké noonu ndeysaan maam xaadim Mbacke mu sëriñ Afia mu ngi ziar magam ji sëriñ Baara Mbacke ndeysaan ndeysaan ndeysaan ngali dégguma leen de ndeysaan Liza bul jooy Liza bul jooy ndeysaan amin Mbacke. Ndeysaan jërëjëf. Ndeysaan. aafiya naa mànd ci leeru aafiya Mbàkke yi jërëjëf Serigne Bara ngi noonu baax baay dundal ba may di baawaan aafiya yaay jaal ndeysaan ma ne ko yaay jaal waaye waa jooju kenn du yaay jaal Bara Mbàkke baax baay ndeysaan bi te du ma noppee di koy wax Serigne Bara dem ci kanam jëf ndeysaan Serigne Bara ngi noonu ànd ak Baye Fall yi di xool mbokku taalibe yi ñu toogee di xool ndax mbokku taalibe yi ñu ngi ci jàmm di xool ndax mbokku taalibe yi dal nañ ci jàmm di sax ma koy jooy

amoo lii sedd na xol. lii sedd na xol. Baye Fall yaa ngi noonu sëñ baa ngi noonu di saafonteeg Baye Fall yi di saafonteeg mbokku taalibe yi di saafonteeg ñi nga xam ne nii mooy taalibe Serigne Afia Mbacke mu sëñ Fallu yi wallay buri Serigne Mbacke ak maaram Serigne Afia jàmbaar ja kon su ko def ah. Baye Fall yaa ngi noonu yegg suuf bismillah na ñëpp àgg suuf Serigne Bara ngi noonu toog mu Cheikh Afia Mbacke mu sëñ Fallou ah jërëjëf Mbacke waaye góor àdduna tëwër bàkk sëñ Fallou Mbacke yàlla nga fi bi oyof waaw bàkk sëñ Fallou lépp oyof ci yow waaw yàlla mën na ko dina ko te am nañ ci yàqin da koy def waaw te am nañ ci yàqin bàkk sëñ Fallou waaw bàkk sëñ Fallou Mbacke bàkk sëñ bi ne woon lépp fi lay mujje ni mu koy wax fii àll la ay étage étage tey xoolal fii boo xoolee kër sëñ Bara gis étage boo xoolee fii gis étage te mi ngi ñëw waaw boo xool démb ak tey ah ku yokkul yaa yokkul waaye sëñ mi ngi dox Mbàkke sëñ Fallu Mbàkke ku damul damoo yaa damul mais sëñ bi moom mi ngi dem te day dem te da ngay dem kenn du la téye Mbàkke sëñ Fallu Mbàkke yàgg fi te wér Mbàkke afiye rek yow afiye nga Mbàkke sëñ Fallu afiye nga afiye nga kenn mënu ci dara afiye nga loolu sëñ bi loolu la sëñ bi def